Nous ñu ici, le préfet nous, fekk nous fa nous nañu tas mbir juste que euh, monsieur Diatara on bi monsieur Diatara nous bi monsieur Diatara nous mu wax ak nous ñu def une déclaration mu nous nous tas sitting bi ñu sitting bi Diatara proposé comme quoi que nous suba dañuy gis directeur bi nous suba ñi dem Dakar C'est daal que nous Nous ici, tas nañu PV bi nak euh mu toll ni ñom dañ ñoo pour nañ dem ci police bi waaw lool dal moom moy mbir mi situation bi toll amuñu benn ndox fi toll ni mom lool moom moy tax taxoon ñu gëna genn parce que fi toll ni citerne sax bu ñëwé mun na ñëw ñaar yoon fi toll ni dañuy dem wuyu dañuy dem tontu leen wuyu seen convocation bi xol lan lañuy wax je suis venu vous avez remarqué sans uniforme parce que je suis en congé mais je considère qu'un préfet n'est jamais en congé il y a toujours des urgences et pour lesquelles il faut répondre présent. Vous il s'agit en fait d'une tentative de manifestation d'une vingtaine voire d'une trentaine de dames. Je ne sais pas de quel collectif vous avez parlé de Mbourin, mais ce qui se passe, en fait, c'est que moi, je considère que les manifestations sur la voie publique doivent faire l'objet de déclarations. Nous sommes dans un pays de droit, c'est tout ce que j'ai dit. Chaque fois qu'un citoyen veut manifester, il doit respecter les procédures normales qui sont prévues par les lois et règlements, à savoir faire la déclaration préalable. Et puis là, on fait l'objet, cette déclaration fait l'objet d'une instruction et s'il y a lieu, les gens vont marcher, manifester ou faire des sit-ins comme ils l'entendent. Mais ce n'est pas bien de euh, poser des actes qui peuvent demain créer des problèmes. Aujourd'hui, la situation de l'eau, les responsables de la SDE sont mieux à même de pouvoir expliquer. Mais on a connu vers la Tabaski une panne d'un forage, le forage F7, qui était tombé en panne. Ça fait que toutes ces zones-là, de Mbour 1, Mbour 2, Mbour 3, Grand Standing, ont manqué d'eau pendant longtemps. Fort heureusement, des réparations ont été entamées et ce forage est revenu à la normale. il faut même dire que le débit est devenu supérieur au débit d'avant. Donc par rapport à la situation hantée, il n'y a pas de difficulté majeure. Les gens on connaissent un léger mieux. Maintenant, il est normal, nous l'admettons, que la situation d'avant n'est pas des meilleures. Jusqu'à présent, l'eau ne coule pas de manière courante dans ces quartiers-là. Mais chaque soir, mieux qu'avant, il y a de l'eau. Il se trouve que des travaux gigantesques ont été, ont été entamés par la SD et surtout par la SONES avec la mise en service d'une station qui pompe l'eau à partir du lac de guerre, vous l'avez vous-même constaté, mais également deux forages et le château d'eau. Les gens espéraient que la date du 30 octobre qui a été avancée, je ne sais pas comment, allait être une date qui permettrait aux populations de, de régler le problème. La correction a été faite, les essais ont été faits. Malheureusement, il y a eu de petits problèmes. Aujourd'hui, nous sommes le combien le 4. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas entendu du directeur, de la bouche du directeur général. Moi, je gère tout l'ordre public. Mais je considère que même si on vous dit le 30 et que nous, sommes le 4, les gens se travaillent d'arrache-pied, il ne faudrait pas tirer trop sur le bouchon. Parce que retenez quand même que le Sénégal est un pays sous-développé. Les gens sont dans des difficultés. On le comprend, mais l'État est en train de faire des efforts extraordinaires pour sortir les populations de l'eau. Je crois des difficultés. Je crois que s'ils descendent sur le terrain, il constate que les équipes travaillent nuit et jour. Maintenant, on ne va pas s'avancer pour une date, mais c'est sûr qu'une fois que les travaux sont terminés, le problème de l'eau sera un vieux souvenir. Donc vraiment, moi, je ne vois pas euh, de quoi faut être un chat, comme on dit. C'est des questions de jour, tout simplement. Il ne faudrait pas maintenant surfer sur ces questions sensibles-là qui peuvent entraîner des problèmes. Parce que, comme je le dis, il n'y a pas un seul quartier où il n'y a pas de l'eau, ne serait-ce que mieux qu'avant. C'est vrai que c'est difficile nous le comprenons, mais c'est des citoyens responsables. S'ils veulent manifester, s'ils veulent faire des déclarations, ils n'ont qu'à respecter les lois et règlements et puis la vie continue. nous daje woon fii euh, muy comité de suivi collectif wu habitants wu Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 nous ñu dajee mooy dañu doon rek waxu ndox bi jafe-jafe ndox bi jafe-jafe bi yàgg na at ñu ngi koy dund mais biñ ko dundé ñi ngi doon muñ di do ay démarches SD nañu ñi ngi dem donc mais dafa am lo xamni lu ëpp tuuru le 30 bi passé directeur général ne woon jafe-jafe ndoxu Thiès dafay réglé wu parce que dafa amoon F7 forage bu paan forage bobu nak réglé nañ ko défar nañ ko amna population yu commencé amaat ndox mais ñun situation bañu ñu 2012 mom lañu nek motax comité bi ñu structuré ko mais biñu andé àndee ba légui def nañu memorandum memorandum bi ay recommandation lañ ci def xam nga yedd dafa am ak xas ñun xasté wuñ xasté ci biir nga yedd ci biir dañu leen wax ne leen lii ak li lañu ñu xalaat parce que ci biir comité bi ay borom xam-xam a ci ño xamni xam nañu

fitin bi ngeen doon amal fii ci buntu SDE ñu tass ko parce que préfet néna na ci yoon bi mu war jaar pour loolu mëna a am. xam nga néna mom euh, déclaration la lolu moy peut-être marche mais kii forme bi c'est une forme très spontanée c'est-à-dire population yu génn la rek manam woné sen jafé jafé lolu mu wax préfet. mën nañ ko nangu parce que dans un état de droit comme li nga wax soy def marche wala sur la place publique war nga def yoon heureusement aussi salué nañ aussi bien démarche préfet président conseil départemental ak ñun comité bi ak population yi parce que waxtaan nañ ba juboo sa heure heure amul sa loolu aussi yakarna ni aujourd'hui réew mi dañu ag fo xam citoyens il faut que ñi jité manam ci walu privé ak nos dirigeants nos hommes politiques baye xel citoyen askan wi yewu nañu sa ñun liggéey bobu nak moy suñu liggéey dañ ci taxaw sa yalla rek moo ñu tax def parce que duggu ñu benn lo xam day indi fitna mais lepp lo xam ni da fay ak ak yelleefu askan wi dañ ci taxaw nañ ci wara a taxawee loolu daal mooy suñu taxawa ba xam nga app yoyu app sax en say suma day ma dee kilifa du damay duma ma joxe àpp parce que affaire technique la mom bimu ko joxee ken forcé wu ko mais comme yéene nga nit yéeneem la am mais dem nga ba le 29 boobu ba léegi liggéey bi di rafet ñuy dem su le terrain app bi mënuñ ko respecté nañu waat ci ñun wala mu jël les médias ne leen ah ñun kat ñoo jëloon lii waaye lii mais defuñ ko ñun nag en tant que comité nekkuñu agent wu SDE du ñun waxu waxuluñu pour SDE dañuy waxal askan wi li ñu gis la ñu xam ba le trente ci jour bi ñu ngi taxaw ndox amul ba tey jii ma lay wax le 4 ndox amul nee nañu nag ñu ngi ci waxuñu délai mais ñun ñi ngi xaar en tout cas li ñu mën a wax daal mooy muy SDE muy Sonatel muy SONES muy bépp service ñun dinañ taxaw lépp loo xam ne àq ak yelleefu askan wi la ñoom ñu mën ko respecté mbirum si dafa juum xam nga dafa juum mooy kilifa bala ngay wax war nga soit li ngay wax nga vérifier ko wala nga dem sur le terrain mais xam nga ñu taan nga nekk Dakar Ouest Foire daal ni problème mu Thiès jafe-jafe am na loolu amul mën mën nañ ko dëggal parce que li ñu dund lañ wax ministre bi li mu wax am bokkul ak li am li am mooy tey Thiès problème mu ndox mi réglé gul ñi ngi koy réglé nag am na ñu commencé am waaye ñu bare bari amagul loolu moom mën nañ ko leeral mën nañ ko firnde